Sëriñ Tuuba nee na quluubu jumlati alladina aflaxu liyatawajjahat wa rabbil muslixu xoli ñi nar a texe ñépp wut si nañu ma waaye yàllaay kiy defare Sëriñ Tuuba nee fa innahu min chiyami l akyaasi képp koy waxal ci nit ñi del nooyal say wax ndax nooyal wax bokk na ci jikkoy ñi yiw sëriñ tuuba nee na xultu liman asaa zannan wa janax lima yadurru innana nilnal minax ki ñaaw njortu ci man ba tax muy jëm ci lu ma lor maa ngi naa ko nun am nan xéewal lu mën a xew sëriñ tuubaa nee na wajtanibul xasada wa huwa yudhibu bil barakaati kulliha fa tadhabu maytu leen iñaan ndax iñaan day xañe mbooleem xeeti barke yi